salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ko ci nekk sa tur ak sa sant naan la mbégte la saa su ne ànd ak yéen ci li nga xamante ne moom moo di seen émission favorite Rich Mondis à partir de 16h très chers téléspectateurs ñu tàmbale rek fas ànd ak yéen ci li nga xamante ne rek moom moo di good time wala passé de beau moment waxtu bi dañuy saafonteeg li nga xamante ne moom moo di yéen mbokku téléspectateurs yi ndax du ñàkk ñu ngi leen di fekk ñenn ñi ñi ngi teg li nga xamante ne moom moo di seen ataaya ñenn ñi ñi ngi toog nànk di laa li nga xamante ne moom moo di seen café di enjoy jooy li nga xamante ne moom moo di seen journée bi ñu passé tey ñun nag li ñuy def rek dañ leen di bunge ngir euh, ngeen terminer agréablement seen après-midi parce que loolu moom moo di euh, yitte wax naa leen ko tout le temps seen mbégte mooy sunu yitte ba na saa ñu fi taxawee dinañ def sunu képptalaay kattan histoire de vous donner que du bonheur et du plaisir waaye comme ni ma koy waxee tout le temps je euh, de mon fils et oui le grand Omar big up baby et puis kontaan naa gisaat la ci bésu tey. naka sa vendredi xoolal maa ngi naan vendredi man dama yàkkamti de naka sa mercredi. Ah, ah, waaw gis nga lii daf may neex ñun suñu duo di def nii pelloo daf ah, may neex. benn benn sa verre baax na macha allah ti tout bien habillé. daf damaa gëntoon verre bi fii. gis nga ñu def tuuti kii xam nga bu yàggee gis nga télé. day dem ba boo tàmmee di def kenn ak moom émission léeg-léeg de doo leen waxtaan de. mais dafa mel ni couleur yi euh, da ngeen di ko sol te nuroog loolu. maa la wax lii. parce daf dal na ma lu bari. Ah, baax na. su may bokk ak nit plateau dañuy xaw a nuróo lu ñuy soxla. ci ngay xamee ni euh, télé kéemtaan la. ay yëf yu garaaw la kenn du wax lépp. <laughs> mais siyaar naa la. maa ngi lay fay one moment please I am having lii dafa garaaw tey nag lan mooy sa rêve du jour. moom laa lay laaj ndax moom nga bind. sagal sama yaay rek. oh my naa ko saga rek. <laughs> macha allah nuyul mbokku téléspectateurs yi. ñu nuyu bu baax a baax le fidèles téléspectateurs de la télévision Futur Média di leen ñaanal jàmm ak salaam. Mhm. ñi caabi féete ginnaaw. Mhm. yal na leen yàlla may liberté. ba ñu delluwaat ci seen kër. nekkat ci nekk nekkandoo ak parents yi parce que mhm. nag yaay yi sonn nañu lool ci yóbbu añ dëgg la ak frères yi ak papa yi mhm. yal na leen yàlla may liberté mais aussi may leen xol muñ ngeen muñ nattu bi te xam ne nattu la rek amiin nekk fa taxul nga bon taxul mhm. dara nattu la rek dëgg la ñi wopp yàlla fëgg seen bopp ñi jiitu yàlla yërëm leen dañoo war a bégalante encore une fois. dëgg la yàlla nañu yàgg bégalante ni lundi ba mercredi. Mhm. teg ci samedi dañuy bégalante ak les téléspectateurs. effectivement ñu indi nag façon musique tey yu différent mhm. ndax dinañ fi gis musique traditionnelle. yëpp gis fi musique moderne. Mhm. parce que musique Sénégal fi musique traditionnelle dafay am base. dafay am cër. parce que bari na ay ndaanaan ñu fi mun a lim ku ci mel ni Alaaji Samba Jabare sam ndeysaan suñu papa yooyu nga xamante ne liggéey nañu fii ci wàllu musique. loo xam ne warta warta nax saay warta nax saay ñu war ko indiwaat war ko mhm. gën a dugalaat ci xolu nit ñi effectivement bu ñu paree ci loolu dinañu ambiance maa la wax li parce que dugg nañu ci kër sama yaay mama Joy Do Mbaye maa ngi koy nuyu de passage dugg nañu ci këram macha allah jëli gorom ah déedéet keñ la ñuy sama waa ji chéri mbow gaala chimère séeri papa papa chimère gaala moom boo koy tudd rek day kontaan am tout moment mën na la may ay million <laughs> laa bëggee dëgg la macha allah kon nag tey comme ni mu ko waxee rek plateau bi dina ala dawme il l'a si bien dit wax na leen ko tey un peu les couleurs de cette émission dinañ ci ànd ak ay ndaanaan yoo xamante ne ñii dinañ def li nga xamante ne moom moo di tradi moderne vers la fin dinañ def ambiance boo xamante ne dina saf-saf waaye ci jiital bi nag dinañ recevoir aussi benn euh, euh, euh, couple boo xamee tamit ñoom ñi ngi évoluer ci li nga xamante ne moom moo di musique bu gën a urbain musique boo xamante ne moom moo gën a jeune donc tey daal je pense que ce sera un plateau ñuy def rek nag man par contre tey dama bëgg tàmbalee ak ay son wu démb ndax démb bi nga ma jox indil ma paa yi macha allah dama bëgg ñëw def tuuti rétro ñëw ci ay wayu yàgg maa la wax li bu arrière dina doy waar askanu law bi bu ma la ko waxee lu mu lay jox askanu lawbe bu salaam jàll eh, man daal yu bare daal yéen daal gars yi jox leen ma rek li ci kanam rawali bët acca na dal bu baax a baax kooku nag sunu grand la moom moo di Fallou Dia ñu koy bëgg bu baax a baax ci li naan rek vraiment lu yàgg dëgg la maa ngi ci gis nag ay fecckat ndaanaan yoo xamante ne ku mel ni euh, dafa mel ni panday gañ siré waaye ki nga xamante ne moom moo di Aïda Dada gis naa ko ci biir gis naa ci aussi bu ma juumulee xaw ma ndax ndey géey la mais kenn daal moo ma ci gën a marqué mooy fecckat bu nga xamante ne mi ngi sol lu ñuul xamaguma ràññewuma torop kanam bi je ne sais plus mais daal euh, maanaam aar yàgg na ci réew mi daal waaye ñi tamit yàgg nañ mën a fecc waaye xam nga lépp na clip bi yëpp lan moo ci gën a bandi ki ko réalisé ndekete tonton mag yaa yàq saay saay <laughs> ay waay tonton mag doomu Alioune Badara Bey bii <laughs> yow xanaa seetaanoo vidéo bi nga ne ma bébé loo fi gis lu la joom <laughs> waaw nga ne ma nga ne lan nga ci doon xool doonu ni amee waaw ah, ak tey loolu daal moo la ci gën a marqué kaay nag ma nettali lu yàgg fiston ah. est-ce que yëg nga ni clip bi biñ ko njëkkee def ah. tonton mag ci xaraceem parce que boobu mi ngi soo ko jóge Amérique dawul keer dafa mus a am fit jóge Amérique nag papam ñëw teg ko point e, association des écrivains du Sénégal mu ibbi fa studio kuy woykatu ndaanaan nga jaar fa ñu jox ko clip bi nag mu def ko mu njëkk ko def clip xam nga ko jógee Amérique da ngay am fit. Ah. da wane lép ñu mujjee censuré clip bi. clip bi mu njëkk def. bii dañ ko defaraat ni la moo taxoon ñu censuré woo. ah yow tam li nga ci gis ni nii. mais kii dafa mel ni Ndeye Gueye la sax borom lu gris ni ma leen ko waxee woon début bi rek mbokku téléspectateurs yéen ñi soog a taal seen télé jàpp ni yéen en direct ci li nga xamante ne moom moo di Richmond Gis tey nag dinañ am ay invité yoo xamante yu am maanaa mais na comme ni ñu ko waxee tey dañuy def un peu d'ouverture indi beneen style musical boo xamante ne d'habitude duñ ko gis ci mbedd bi nañ koy gis dinañ ci waxtaanee ne moom moo musique comme comme ñu ko tàmm defee waaye li nga xamante ne nag moom moo téye richmondise ba tax yéen sénégalais yi ngeen bëgg ko def ko seen biir xol di ko réclamer saa su ne mooy ambiance ambiance bu saf sàpp dina am li ñuy def rek dañuy dugalaat beneen deuxième son tout le temps ci thème mu rétro le temps que ñuy recevoir suñu ñaari invité euh, tout de suite parce que ñoom c'est un couple on va recevoir la famille Aydara monsieur et madame Aydara ñoom tamit ñu waxtaanee un peu seen carrière musicale ak naka nañu tàmbalee bi ci topp nag moom surprise lay doon képp koo xamante ne gis ko gis ci sa bopp rek xoolal xamal ne yaay boroom na ca dal. yàlla na xel de <laughs> Coumba Gawlo Seck di ko jaajëfal bu baax a baax la grande diva à la voix d'or euh, je pense que dans tout bientôt moom itam mi ngi waajal benn événement bu mag a mag démb rek maa ngi dégg ma consoeur ñaatamba di ko jàllale ci li nga xamante ne moom moo di télé bi waaye comme ni ma koy waxee rek yàgg nañu nekk euh, ay artistes ay ndaanaan li fadrin comme ni ma koy waxee Sénégal maanaam le coup de rein de la femme sénégalaise loolu amul ci mim réew ndax clip bu ñu njëkk seetaan dama ci wax ba sonn waaye xoolal deuxième clip bi xale yi def seen yu xonq jël seen ay bin bin takk ko ci biir def seen sër yu xonq def seen oo yu weex ba pare naan del bin bin bin bin bin. daa naan li sax lañ sol. ey bébé ñaata at nga am. non damay dégg gars yi non yow yow da nga garaaw li ma lay waxal yëpp yow la. yow la dernière fois yow yaa ma toog ne ma yaay. yëgg ne am nga lan lan ci biir néeg. lan la woon ah xaw ma affaire bongo ci biir néeg. Ah, yéen tey ah ok bo eh. takusaanu bongo. Ah? <laughs> <laughs> ay waay lii ma dégg sama nopp bi bu ma la ko waxoon tey da bàyyi àddina mbaadu expert daal dinaa ko ko wax waaye dégg naa ko garaaw ga non non man moom mooy loolu expert nga dégg naa <laughs> Omar Omar yaa garaaw macha allah waaye leneen li ma ci gën a neex nag mu nekk euh, son bu am solo ndax boo dégloo bu baax a baax euh, way wi dafa neex waaye dama ci gis kenn koo xamante ne c'est une grande diva Euh, euh, elle est devenue incontournable de par le monde euh, de par li nga xamante ne moom mooy li muy def lu jëm ci wàllu couture elle est devenue exceptionnelle de par le monde parce que émission yu mag bi nga xamante ne qui représente la femme africaine moom da ci nekk tey ma toog gis ko ci lii donc dama koy nuyu déjà dalal ko tey nag dama indi démb lu garaaw laa leen indil déglu leen ma rek allo la grande royale Mais la sœur de la Grande Royale. Comment vas-tu? mais je vais bien et toi-même. mais maa ngi la nama Eva Tra sama. ma maa la raw sama rakki xol bi di ñaan yàlla mu may ñu bës a jàmm ma tagalu ci dikk. amiin yaa rabbi nangu sama ay yëf naan bu ñu naan kuy nangu yaay nangu lépp. incha allah ma ni maa koy nangu. <laughs> dégg naa ngeen may jëw. yow ndekete sa grâce dafa yàgg du tey. lii de mais dama dégg lu wees noonu ngeen may jëw naa woo yéen waaw bu xonq. nga def waaw. xam nga xam. xam nga moom la noo wax ne. waaw weesu ca bako aayul. dëgg la da nga da teg clip boo xam ne ci ay jamono créé na fi si si dana fi lu ne. <laughs> yàlla def ca boobu jamono. waaw xale yi gën a rafet ci Ndakaaru. xam nga ñun bés bu ne da ngay dégg sa mag naan la ci tefes gi fii lañ juddoo ay xale lu ndakaaru la maa la wax lii. yàlla def ca boobu jamono ndeysaan ay xale yu rafet. Ah. yoo xam ne ñoo ne woon fii ci ndakaaru ñoo ci bokkoon. dégg la et par la grâce de Dieu ma doon liggéey ci Collé Ardo. ndeysaan ña nekk noonu ñëpp nga gis leen maa leen solal ñëpp nag. ah yow dama leen sonal ba ba ba yëf yi sotti ma ne naa ca boole sama bopp. dégg nga lii mais mais mais inspiration bi. le rouge et le blanc déjà loolu rek. effectivement non mais beaucoup de grâce. c'est c'est vrai Madeleine et et du coup. Uh-huh. Euh, chaque fois da ngay dégg nit da xam nga clip boobu lu may fàttali Madeleine. waaw dafa am benn góor gu mu sonn wax mu ne eh nga xam ne ab feccikat la woon mani déet. déedéet du ndax feccikat sax ca jamonoy Senghor. bu mm-hmm. président Senghor daan dem dafa daan yóbbaale ñi nga xam na ñoo nekkoon dans les arts. dëgg la dans le monde de la danse. kon léegi la am sax ñuy wax yéen ñi waaye boobu jamono macha allah dañu nekkoon ay xale. Mm-hmm. intéressé wu ci art. mu nekkoon sunu ñu gunge ci sunu xarit ba mu jur lii mu jur nii macha allah. waaw ah. laa la wax ca njalbeen de la weesu ko ba ko aayul. wallaay de xoolal li léeg-léeg léeg-léeg nga gis sunu yaay yi. ñu sol seen ay robu Charleston ndax yow sax xam nga Charleston xamoo ko de da nga daan gis sunu yaay yi ñuy sol def seen ay yëf yu rafet sol seen ay ballerine sol seen ay ay mil sol seen ay ay Charleston nga xam ne tey mënatuñu ko ndax mag dikk na. ak dikkagul sax gaa waaye weesu ko ba daa am. wallaay weesu ko ba ko dafa am en tout cas. c' est tu me fais tu me fais penser. Mhm. au fifisité yi ci nekkoon. ndeysaan à Mame Diarra mu nekkoon Miss Dakar. effectivement yeneen femmes yoo xam ne c' était des danseuses. elles des danseuses qualifiées. oh mais danseuses qualifiées ñoo ci nekkoon. magnifique c' était et c' était le bel âge macha allah on avait 18 ans on avait 18 ans. Oh. fu ñu lenn lu dul loolu macha allah. di ñaan yàlla sunu rakk itam lépp lu ñuy def rek yàlla bu mu am ngaañ ndax loo gis rek jamono la lu waay wees na ko ba da nga gis koo xam ne da doon dem tey ca ca ca boîte yi di fecc salsa di kii waaye yàlla def ko muy imam mu dem toog kon àddina yàlla na ñu yàlla may yooyu yëpp c'est important lu waaye tollu daal boo ko dundee boo ko weesee ba ko xam nga boo man naroon solo sax tey jupp du ma ko mën. macha allah tey dégg naa nel nel Alaaji Malick nel nel sama sëriñ dégg naa jëwam yi lépp maa ngi ci dama ci balaa toog di ree. <laughs> yàlla def jàmm. amiin waaw nañu nañu dund li ñu war a dund. bu bu leneen jotee itam nu def ko te na mu gënee rafet te baax. wallaay yaa ngi ci toogaay bu soobee yàlla. et eh, eh, comme tu comme tu le sais xam nga xam nga sa seur artiste la dafa nekk ci monde solu. et eh, léeg-léeg mooy waral nga gis bii Eva Wareef gis beneen Eva ca leneen. mais mhm. lépp rek ci liggéey bi la ci liggéey bi la macha allah. Regarde, toujours dans la classe et l'élégance. Merci chérie, merci. C'est une référence dans ce pays. Merci yow da nga ñàkk ci ñaan da nga ñàkk ci ñaan da nga ñàkk ci ñaan. J'en profite damay <laughs> anticiper rek. Euh, waaw bonne fête de la femme parce que c'est tout bientôt. <laughs> ah bah oui c'est même bés yëpp ñoo ko moom Madeleine bés yëpp ñoo ko moom ñun ñooy jooy ñun mm-hmm. ñooy reetaan léegi mm-hmm. ñun ñooy xiif léegi mm-hmm. jox njaboot gi ñu lekk ñun ñooy jaaxle te duñu tere yor kër gi. dëgg la. ñun ñooy gis loo xam ne nit gisagu ko ñu wax ca ñooy gunge suñuy borom kër gunge goro yi gunge confident yi yooyu yëpp macha allah jigéen la tege ca kawam dafa dafa dafa rëy te bare li nga ma jox nag jox naa ko jigéen ñëpp di leen muñ loo di leen wax ne àddina ku bëgg jariñu faw nga muñ lu waay muñul doo ko fekkee lu waay muñul te liggéey bak ca kër ga lu doon Mm-hmm. dunda mata ñaan yal na ko yàlla defal jaw bu baax nga amiin maa ngi lay bisu te di la ñaan aussi nga seetaan ndax li ma nar teg ñaar ñi may invité tey xam naa boo dégloo seen histoire dina la ñor te dana egsi ba ci wareef. gros bisu love you alhamdulilah <laughs> di ko jaajëfal bu baax a baax comme ni ma ko doon defee rek mënul woon ñàkk ñu tooñ ko dugal ko ci li nga xamante ne moom moo di ligne bi lee wax naa leen ko parce que c'est Evatra dañ ko gis ci biir waaye mu wax lu am solo loo toll ca ba nga ca tolloo nga def ko waaye boo ca weesoo nga nekk ca leneen elle reste tout le temps cette dame gracieuse remplie de grâce et très raffinée xam bu baax moom mooy kan moo taxit ñun dañ koy roy kon nag sunu mag jooju gàcce galaama kon nag bébé Omar li ñuy def rek euh, dañuy tàmbali avec euh, les invités. léegi nag je pense que dañuy ñëw ak ñi nga xamante ne moom moo di couple bi ñu def tuuti musique euh, urbaine wala ñoom daal ñu expliquer ñu tey ñoom ban style de musique nañu def kon mun nañ leen woo ci plateau bi bu mu juumulee Aïcha ak Mohamed. mooy couple Aïdara. waaw kañ couple ay dara. couple ay dara. acca leen bisimila <laughs> ñoom nañu nar a recevoir. oui bébé en daal ku góor ki moom afro la def. dëgg la ku jigéen ki. ay njoñ la takk. dégg lii. mun nañ leen tuddee ay bayfaal rek. ay baay bayfaal nañ de waaw nuru nañ ko. <laughs> mun nañ leen tuddee <laughs> man nag li ma ci xaw a jaaxal te xam naa ne du ñàkk di nga ma ko laajal. Mhm. ndax c'est très rare ma dégg ay dara. nekk ci ay way. loolu lu ma yéem la waaw loolu moom je pense que. bu ci mun nañu way sax mais bu ñu way ak ay tabala la ñuy way ay tabala. ak ay tabala. waaw ak ay xiin. et eh, yow di la lii jàppoo bi mais prenez place ma très chère c'est un honneur de vous recevoir mm. madame Aïdara. monsieur Aïdara allez au plaisir. tout Omar. alors man nag dama am benn euh, habitude boo xamante ne dama ko tàmm def. je vais me lever excusez-moi donc euh, man li ma tàmm def rek mooy. Euh, je donne le micro on en direct hein ñu jox ko micro voilà et voilà dañuy jël micro bi jox ko madame merci léegi yow boo bëggee man ma ñëw jël si micro bi télé bi nii la rek la télé ce n'est de la télé waaw léegi micro dama koy dem jox ko Omar non fi mu ne nii maa ngi mel ni professeur c'est moi qui gère ah Omar c'est moi qui te donne le micro ah donc mi ngi nii yow léeg-léeg parfois nga jël sa kii bi technique guitare gi affaire bi di jolli donc très chers téléspectateurs Haj Malick boo amoon benn son wala sama bébé Ali tanadadadaa wala damay écarté ma yemaat tuuti rek parce que maa ngi mel ni ku ne ci film de film de tanadadadaa. nga bëgg suspense. waaw rek ñoom ñu tàmbali wala ñu arrêté rek ñu tàmbali. est-ce que duñu arrêté ñu tàmbali tuuti rek. ñu xool lu ñu àndeen <laughs> yow yaay doxal man sa gan laa rek doxalal. acale na ca daal gisul damay wéy ba du ma nekkati yow lay xalaat baby bul di yàggati yow lay jàdde suma wet ak suma xal lépp ni selaw xol bi tàmbalee di wéy shururururu ma bubu bubu bu ana nanu mu suma xal kaay fi shururururu ma bubu bubu bu ana nanu mu suma xal kaay fi li mu daw daf may dal su ma wéetoog yow lii laa léegi man de xaw mu daw daf may dal su ma wéetoog yow su ma gisul damay wéet ba du ma nekkati man yow laay xalaat baby bu di yàggati yow laay jaatee su ma wéetoog su ma xol lépp ne selaw xol bi tàmbali di way sururururu ma bubu bubu bu xam naa lu mu suma xol kaay fi sururururu ma bubu bubu bu ànd naa lu mu suma xol kaay fi <laughs> Eh, di leen di jaajëfal bu baax a baax c'est le couple Aïdara peut-être que am nañ benn nom boo xamante ne c'est le nom d'artiste en tout cas moom moo tax tey ñu invité leen en direct de la télévision Futur Média un peu pour parler de leur histoire waaye surtout aussi ñu xamaleel ñu ak euh, yan xeetu musique nañuy def parce que euh, li ñu tàmm gis wute na ak tey li ma gis Omar. moom a jaaxal na ma de mais li nu way damaa bëgg xam kan lay gën a dal ci eh, suñu nuit de noces. ni dañ ko passé ñun ñaar ñëpp lay dal. ba ñu takkee ba pare ba dem kër ga ba toog ca lal ba sëlmoo laax yeeg soow yi ñëpp ñibbi. maa ko njëkk si maa ko njëkk a takkal. maa ko njëkk a man maa ko njëkk sama rakk mën na ma seede suñu waate maa ko njëkk a takkal. yow yaa ko njëkk a takkal mais dama ko takkal tuuti moom mu takkal ma lu bëri moo tax ñu foog ni moom a njëkk a takkal. donc suñu wéetoo daal. suñu morso la wax dëgg yàlla maag moom suñu wéetoo moom la ñuy wéyalante. ndeysaan ensemble wallaahi waaw c'était le plus beau jour de ma vie le 17 mars. C'était un 17 mars. Un 17 mais mars. Mais c'est tout bientôt, on rentre dans le mois de mars là. là un an, oui, bientôt. On va faire un an cette année. Ah, vous allez faire bientôt un an. Alors ci ngeen toogee rek inspiration woy bi parce que kon yéen artistes yi yéen je pense yéen ñiy def musique vous parlez peu mais li ngeen di communiquer je pense que vous le faites à travers la musique. waaw comme tey jii bu ñu xoolee ku ci mel ni suñu ay idoles yu mel ni Youssou Ndour. Hmm. tu vois c'est toujours bien de. d'exprimer ce que l'on ressent à mhm. travers la musique di bañ a bëri wax daal jàpp naa ne waykat moom lépp war na mën a exprimer ci ci musique am donc pour faire passer euh, même bu fekkee dafa expression la boo xam ne dafa naqare ci wax micro bi waaw di dafa même bu fekkee loo xam ne dafay naqare si wax mën na neex si musique dëgg la mën nga ko jàllale si musique mu neex donc ñun musique rek la ñuy jàllale suñu lépp. ok alors tout de maa ngi naan monsieur et madame Aïdara alors yow naka nga tudd c'est comment. man Aïchatou Sakho. Aïchatou Sakho mm. yow da nga nekk musicienne avant wala nii rek moom moo leen boole wala yow am am nga sa yëfu bopp. waaw man dama nekkoon musicienne avant. donc euh, j'ai eu un long parcours j'ai eu à euh, deux albums nekk chanteuse dans les hôtels euh, bon j'étais la chanteuse de base du King Fat. après si euh, signé ak benn association française def album en 2013 ndax ñu dégg la bu baax waaw signé en 2013 ak benn association française def benn album mais comme nu les chanteuses d'hôtel moom suñu public c'est des nomade du ñu toog donc suñu public local fii du ñu xam te hôtel euh, bu ñu la signé c'est pour par exemple foofu def naa cinq ans jógee foofu dem Radisson def fa deux ans donc ñu bëri bu ñu seetaanee clip bi sax dañuy jàpp ni nekkuma Sénégal alors que maa ngi fi donc euh, avant qu'on se marie dans la musique te musique moo tax ñu xamante. ndeysaan eh moom. waaw comme elle dit on a eu tous les ah. deux des parcours musicaux. Oh. moi aussi j'ai commencé par le rap. defoon ah. plusieurs produits. Uh-huh. Euh, def ay produits ak rajo génne single pour euh, un soutien aux prisonniers. Euh, def Fesman gagné festival Demcom. par la suite j'ai voyagé à cause du rap. et j'ai découvert la guitare. et j'ai toujours été fasciné d'avoir un instrument boo xam ne damay mën a produire sans déjà juste avec mon instrument et ma voix après lu ci tegu rek doon plus yàlla def ma dem Saly parce que à Dakar je suis de famille issue de famille religieuse te la musique n'était pas très probable dans ma famille et dans mon fief oh, donc euh, maa ngi dëkk grande Dakar fii donc ma génn waaw kër Chérif yi Grand Dakar fii ci marché bi waaw donc ma génn fii dem sali dajee ku mel ne Ali Jaber papa Ali mu gis ma la première fois may def samay composition mu ma fii variété moo fiy dox man groupe bi fii hôtel yi variété lañu bëgg. Mhm. ma ne ko man daal xeebu ma dara man liggéey laa bëgg ma. Mhm. j'ai commencé chez Ali Jaber j'ai fait six ans là-bas commencé bagagiste. Mhm. mu ne man nag yow gis naa ne ko njaxlaf la bul bàyyi dara defal lépp. j'ai fait bagagiste technicien ba ba may jël guitare commencé di way scène commencé def variété. di way ci hôtel yi et di def variété donc c' était pas très probable may def sama composition bu njëkk amoon authenticité jékki-jékki dugg variété. ça a été très difficile ce passage voilà, mais on a aussi tenu toujours cette authenticité ci suñu variété yi ñuy yi ñuy def yu bëri. Mhm. dañuy indi traduction tamit dañuy def variété mais dañuy jël wayu Bob Marley en anglais. trad wayal la ko traduire la ko en français en wolof. nit yi xam tamit et c'est très pédagogique nit ki bañ ko xam wala mu mu. mu xam parce que parfois dañuy topp ci woy bi. mais ñu xam euh, thématique wala signification bi. man tu sais je suis très en en freelance. tey bu ma leen demandé woon ngeen dóor ñu benn nii mën na nekk. bien mais na ca dal benn Bob Marley na ca dal. jàngale mu ne maa ngi yeewu suba teel jàkkaarloog jant gilee am ñetti picc yu ndaw sama buntu ne ñu ngi waay waay neex neex dëggu ñoom nee nañ ma lii mooy bataaxal bi ñu laa yónnee sëñ bi bul woowe ci

me chantant de belles et pures mélodies. Mais ils dit, ceci est le message qu'on a toi. Sing it, don't worry, ci àdduna yow. ndaxte lépp loo fa mënti gis moom dafay jeex. loo fi mënte gis dafay jeex ça va revenir un peu pratiquement sur ma dernière question malheureusement dañoo amaat yeneen invité mais j'aurais aimé avoir plus de temps avec vous pour waxtaan euh, parce que léegi da nga wax quelque chose de très important da nga ne issu d'une famille euh, chérifienne ou religieuse moom tamit ci famille. Alaaji Saaxo maa ngi bokk ci famille Saaxo Saaxo. famille Saaxo Saaxo. di jégalu nag sama waa kër di maa ngi seen sarax daal nañ ma baal rek. <laughs> yow nga nekk ay dara ay dara waaw comment ça se fait cette histoire là. parce que d'habitude c'est très rare peut-être boo leen di gis ñii ci tagg yonent bi ñii peut-être ci ay tabala mais comment ça fait ba ngeen def euh, nekk nii di way est-ce que. Euh, euh, ça c'est accepté nañ ko seen famille wala comment non, vous faites difficilement mais xam nga dañoo am éducation de base boo xamante ne nii ça nous a beaucoup aidé ci mm-hmm. biir loolu noonu parce que suñu famille yi tey jii même bu fekkee mission bi zaahir ak baatin la daal ñun ñu ngi ci zaahir bi waaw man noonu laay wax dëgg parce que ñoom nañu yar biir zaahir bi tamit ndax mission mm-hmm. lañ ko jàppee rek mm-hmm. ñun taamuñu ko yàllaa xar suñu dënn yi def ko ñu bëgg musique bëgg art man dama ne chaque fois loolu la ñuy wax ñun ay artistes lañu. Mm-hmm. on représente l'art mm. même en dehors de notre musique ci suñu colin ci suñu waxin. on on s'imprègne des gens. ci quelques minutes yi ñu toog ak yow Mado. Mm-hmm. ñu tey kook ñu ñàkk ko tey suñu génnee am na lu ñu jël ci yow loo xam ne dinañ ko def su moment bi ñëwee. Mm-hmm. consciemment ou inconsciemment on va le faire. et peut-être qu'on le sache ou pas on aurait pris de Mado et noonu la ñuy def noonu la ñuy dundee tout le temps. donc musique bi tamit nekk benn loo xam ne dañ ko gëm ne mission la ci ñun. waaw. jamono gii nii dañuy def benn concept boo xam ne amagul fii nii te c'est né d'un mauvais événement oh. ñu joué woon ci benn restaurant uh-huh. du ma tudd tur bi ñu génn fay musiciens yi mu dese suñu cachet uh-huh. ñuy xaar taxi bi ma dugg ci boutique bi ci parkingu ngor bi ñu daal di sàcc saagu madam yóbbu portable yi oh. carte d'identité yëpp lépp yooyu gudd ñu war a ñibbi sali war a ñibbi sali yoruñu dara am mettit et comme elle disait au début ñu ne nañ dox ñu jàllale ko ci suñu musique suñu guitare ak suñu voix ku ñu romb woyal la. kenn ah daanaka sax du xam ne <laughs> xam ne ne sax ne am nañu. métti mais c'est quoi c'est quoi le concept là. donc concept boobu noonu. foofu la juddoo oh. ñu on en est tombé amoureux. parce que bés boobu noonu on a fait tellement de belles rencontres. ba tax na tey jii nii. on ne uh-huh. chôme plus. Oh. qu'on joue dans les restos dans les boîtes de nuit ou dans les hôtels. qu'on ne joue pas. Uh-huh. à chaque fois qu'on le fait tous les jours. on prend notre guitare et nos voix. madame ak man. d'ailleurs euh, tout Dakar. dañuy euh, woyal ñëpp son bi ñu mujjee def nii. Three ah. Little street leen musique ba wayal ko papa Youssou Ndour. macha allah nañu voilà di leen commencé wolof bi. lii la ñu wax wallaahi c' lii yàlla rek ko mën comme on dit malheureusement la télé c' est du timing. comme ni ko Omar waxee y' a d' autres invités. qui doivent passer ba ñu sañoon vraiment dañuy yàgg ak yéen gën a waxtaan. Ah, mais nii la yëf fi demee je pense que euh, dernier musique bi ngeen di tàggoo rek ñu recevoir ñeneen mooy peut être. merci Mado di la di la remercier Mado si habillement bi. le 11 mai jeex na tàkk incha allah. di remercier Glam Style by Mado. merci bon maquillage. madame monsieur madame Ndiaye toute la famille Ndiaye. vraiment monsieur Djibril Rassoul. merci beaucoup waaw madame Bathily ainsi que Astou Mbaye. Astou Mbaye Ross. yow mi Mado. yow Mado tout le euh, pël bu ñaawul bi santa vraiment ku lim juum. ñu ñëpp ñi ñu jot a jàppale. ñoom Alioune ak waa Jënkël yëpp. personnel merci beaucoup ñoo far en tout cas xanaa ñu may leen benn son le temps ngeen di ko tëjee jógee yeneen invité yi ñëw parce que problème de timing la Omar. street eh. xaw ma naka ngeen ko tuddee acca. dama lay may jeex na ta ah. Alaaji Fallu magum Basiiru jëfal te may ñu yaay doomi Bamba léegi sax dañuy sol ay yëri yu waloore. Eh, léegi sax dañuy njoñ ay ginaar di reere. Alaaji Fallu moo fi falfaleeti moo ñu tàggaleeg taax ba ñëpp ngi ci taax moo fi def nit ba def di dindi moo jubóog boroomam ku ne waaw mu ne waaw ku jaayu ren jaayu déwén ku jëf ren jëf déwén jaayu ren jaayu déwén ku jëf ma doole jaayu ku jaayu ren jaayu déwén ku jëf ren mashallah jaajëf ñu ànd ak Hadj Malick mu tegal ñu benn vidéo merci à vous deux c'était un plaisir de vous recevoir nii la demee le temps est court mais li ñëw mooy dàq na ca daal Omar Pape Diouf Ah, borom génération consciente ñi ngi koy bëgg bu baax a baax mu way way joo xamante ne dafa am solo ba tax na damay dem ba ndar géej di ko jox ki nga xamante ne moom moo di sama yaay ji di ajaratu aja ah, cuun neex a fekk fi nga xamante ne moom moo di ah, Saint-Louis borom fied moom itam ñi ngi waajal li nga xamante ne moom moo di fied Guinée j'en profite aussi pour faire un gros coucou à la président Hervé Yawo moom itam sunu yaayu bopp et toute la famille dem ba London aussi ki nga xamante ne moom moo di Oumy Ndiaye London mi ngi ñuy seetaan rawatina nag Yacine Yacine sama Yacine Yacine wu xol Yacine Diop sama doomu bopp la grande maquilleuse waaye Pape Lam le grand photographe mi ngi ci biir niñ ko waxee woon rek sànq bokk téléspectateurs yi euh, Omar tout le temps daf ñuy indil ay invité hors pair génn nañ nag ci li nga xamante ne moom moo di street music mooy euh, nouveau concept bi xale yi génnee léegi mooy ce couple di wër ci mbedd bi di woy ak di traduire ay chansons yoo xamante ne ay grands euh, chanteurs ñoom ñoo koy def ñoom ñu indi ko ci kàllaama wolof wala kàllaama tubaab sax waaye ci loolu biñ ci jógee dalalaat na kenn koo xamante ne ndaanaan kulli fadrin la ba tax na Omar maa ngi lay jébbalaat kàddu gi comme ni nga ko tàmm defee rek nga wax ñu tey kan ngeen ñu indilaat ci ndaanaan ci plateau Richmond Gis. tey suñu papa alaaji Baara Ndiaye la ñu andiwaat. macha allah ñëwoon na fi bu yàggul dara. Mhm. mais boobu temps bi moo gàttoon trop. dëgg la jotul sax joué li mu bëggoona a joué. ndeysaan jotul woon aussi wane li mu bëggoon a wane. Mhm. tey ñu indiwaat ko pour mu yeggali wane gi nga xamante ne ni mi ngi ci woon. ndeysaan ndax am na lu ñu dencaloon. boo xoolee keroog ak tey orchestre bi yokku na tuuti. ah <laughs> macha allah am na lu am na a dugal. tey bu mu bi may wër. nan ko bàyyi mu doxal tuuti. acca bisimilah papa dalal ak jàmm ci plateau bi. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal gépp ñu ngi lay fay. Euh, rawatina nag bi nga xam ne ci laa jógee. macha allah muy Bambey. ndeysaan nag région Diourbel département Bambey dëgg la. waaye di nuyu sama njaboot nag yëpp samay soxna ak samay doom. ah papa nag di nuyu di nuyu nag itam <laughs> fàttewuma kenn. sama euh, autorités yi nga xam ne ñoo nekk Bambey fàttewuma kenn. dëgg la di nuyu nag sama waa dëkk parce que moom Bawol laa dëkk. Mhm. moom laay wax tout le temps. macha allah di ko mhm. laa sopp. dëgg la euh, fii nag euh, kilifa gi nekk di fi nekk di ku baax. def loo xam ne àdduna bi yëpp a ci jariñu. dëgg parce que lii mooy musique. Mhm. dangay def benn affaire ay doomu aadama di ci jariñu mhm. di ci jël seen seen njariñ te loolu def lu nit defut ci li amut kon dañ koy ñaanal lool nag tax tey ma raamaat dellusiwaat fii fu ne jàkkaarloo ak askan wi nag mhm. wax ak Sénégal macha wax ak àdduna bawal bawal dama lay way rawati la mbaay la ngeeg daare la mbaay la cosaanoo bawal bawal dama lay way rawati lambaay kuy na ngeen neele lambaay la ca saat noo que yow mën nga déglu la rek comme télé bi temps yow ngay tàmm le temps ñoom ñuy ñëw boole sabar bi ñu dem le temps que kii jox leen son. acca. awal oh. dama lay wari rawati la maay. la nga daare la mbay la tasaadoo. daal moo nangoo liggéey bawol bawol daal gàcce galaama. waaw dëgg la boo xoolee fi dëgg la fi leen di fekk. wallaay rek war naa tax nga xam ne bawol bawol nangu naa liggéey. wallaay macha allah. boo leen fekkee ci pàq yi xam ne ñoo nangoo liggéey. dëgg la. ay jàmbaar dëgg lañu. macha allah mais ñi ngi leen nuyu encore une fois. ginnaaw waaw maa ngi leen di fay bi ñu dégloo baat bi nga xamante ni yàlla defal na la ko. Mhm. Mhm. mu mel ni que ni mën nga way sans kora comme mën nga way ak xalam bi aussi. waaw dëgg la. lan mooy def loolu. Oh, loolu nag moom yàlla moo ko def si man muy doon ci man. man dama yàgg li dama def école des école des arts. Hmm. ñaari yoon. jaar nga école des arts. def ko région Diourbel en 2006 maag ay décembre tey ji ak ñeneen ak ñeneen. dëgg la waaw daal 45 jours def naa ko foofu Diourbel ñu ñëwoon fa. Oh, ginnaaw ma sant yàlla nag euh, bala may avancer rek. Mhm. damay sant di ko bawoo di ko bawoo sama waay sama xarit parce que nag tey jii yàgg naa di woy yàgg naa def lu ne mais vraiment fi ma agsi tey ginnaaw yàlla moom ma fi agsi dama jàppale kon maa ngi koy sant di ko nuyu euh, di ko nuyu ak njabootam mais du sant El mbay Mbaye mi nga xam ne nag itam sama waay la parce que bi ko bi mu nekkee Espagne mhm. avant mu fay dem dama doon liggéey ak moom di liggéey ak samay doom ba mu dellusee nag fekkaat ma nekk si aar bi mu ne ma baara. Euh, waaw mu ne mu ne ma laaj euh, sama doom ne ko xaadim mu ne ko père ci affaire ba léegi. mu ne ko kon naa ko jàppale. kër mu njëkk di enregistré Diourbel. Mhm. Euh, ba mu ñëwee ci studio ba daf ma ne lii du sa studio. dëgg dañ lay wutal benn studio ba amee financement yàlla dogal. Mhm. après ba ma amee financement nag. Mhm. ci la ci la ci la ci la ci la commencé jàppale ma dugal ma studio. Baara moo ne nii. non El Hadj moo nekk nii man maay Baara. yow yaay Baara waaw Baara El Hadj Mbaye moo bitim réew. ñëw di la jàppale waaw moo waaw El Hadj boo ñu tuuti loo ñu ñamale. Ah, macha allah kàddu papa. waaw loolu rek la euh, kon euh, comme di di wax itam di tàllal loxo ki nga xam ne mooy kilifa gi. parce que ñun dañuy woy démb ak tey. te boo ko seetloo jamono ji fi mu ne ni mu demee nii. Mhm. ñu gën a waxtaan ak ndaw ñi. gën leen jàppale. Mhm. ci yar bi mais mhm. ci. ci bëgg nekk ci aar bi ñu jàppale la nga xam fan ngay taxaw parce que way tey mu jeex tey dañ koy dégg mais da ngay way mu des si comme Ndiaga Mbaye ni mu ko doon defee kooku voilà très bien loolu moo moo mooy mooy sama euh, li ca dolli ko mhm. ah euh, bawol gi ma dëkk itam mhm. yàgg naa fa yëngu vraiment euh, ba agsi fi tey jii léegi nag fii ma toog taxaw tey ma ñëw tey borom daara ji yaakaar naa ne moom mi may dégg wala su ma dégg lu man nañ ko ko jottali maa ngi jiim nag maa ngi jiim nag di dem xaaruma kenn mhm. waaye nag ku ma teg loxo yit ma jël dëgg la loolu bëgg naa ku ma jàppale incha ci lépp parce que man waxuma rek sama bopp de mais ñi nga xam ne dañu nekk bawal di yëngu ci culture bi bëgg naa aussi ñu jàll dëgg la papa euh, macha allah li ñuy def rek bu ñu sañoon yëf yi du demee nii waaye comme ni koy waxee euh, télé la te dafa am yeneen publicité yoo war a xam ne dafa war a dugg moo tax tey moom wax bi du ma ko guddal hmm. li may def rek dama lay mayaat nga ma defaat beneen deuxième son hmm. ndax gars yi producteurs yi ñi nga xamante ne war nañ la mën a dimbali hmm. bu ñu gisee ndax ñu gën laa mën a woon bokk comme ça ñu mën a recevoir yeneen invité ne balaa dara rek may nuyu sama ay càmmin yi nga xamante ne ñi ngi bu baax xamante ne moom moo di sa wàccuwaay waaye di big up ki nga xamante ne moom moo di sama rakk xol euh, borom fondation La Djeri dont la directrice est Djeri Ngone Malobe Samba Assoubay moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax waaye sunu gan yi nga xamante dañu jóge Fuuta ñi ngi leen di ziyaar wax lépp nekk waxkat waaye li ci kanam rawali bët ana waa na ca dal kon mu ñaaw kon mu ñaaw sama bay ngir àdduna kon mu ñaaw kat bu ñaawee kan mu ñaaw sama bay biir aduna bu baax seen bopp eh, ci li nga xamante ne moom moo di émission bi les gens profitent pour faire un gros coucou à Mamadou jàlloo sama taximan bi nga xamante ne bi ñu àndee ba tey eh, dara ñaaw li ñuy def rek dañu continuer ak li nga xamante ne rek moom moo di eh, gan yi gisaat nañ ne keneen koo xamante ne ndaanaan la waaye li ma ci gën a neex moom day xaw ma sama sama doom laay wax wala sama sama xarit ndax yaayam sama xarit la sama mag la sama yaay la donc moom sama frère la daam dalal ak jàmm ci plateau ma bàyyi la ak moom yaayam sama yaay la la macha allah waa Tëngéej ak waa Rufisque yëpp nee nañu. Mhm. Dame Chapeau. nangul nañ ko li mu mën. Mhm. moo tax tey ñu indi ko pour xool li daam mën dëggantaan. déggal li moo tax yaayam nee na bu daam wax na daam way kon daam wayal. acca. yeewu ci Sarr sama waa ji yow la kon ceere ñëpp yëg ko sama way bi yaa ko moom yow baay dama la dama la dama la su bëgg yi may seet mahol bi yow la ko ceene bii kaw na ca elal may seet bi seet xol bi jaajëfal bu baax a baax man daal li may wax rek moom nee naa la saa yoo kastingee rek ñëpp ne gongo waaye xam naa ni tey ñi toog seen biir kër ñoom itam wax nañu gongo Omar. waaw tënkee dañu toog réunion macha allah. ci lu métti. dégg li dafay bari ay événement yu am foofu. rawatina uh-huh. sax ay jàkkaarloo. macha allah. ñëpp bu ko jël ci benn jour. Uh-huh. muy di coow lu rëy. dégg li li waral loolu mooy dafa mën a way macha allah bu jàkkaarloo ak yow dina la wax ba wax la say maamaati maam. waaw war naa a ne. muy ndax jarbaatam da koy def. <laughs> ñu bàyyi la nga nuyoo ak les fidèles téléspectateurs. ndeysaan waaw salaamaaleykum njaboot. mbokk mi ngi lay fay daal di ñëpp di bëggee ñëpp. Mhm. waaw nuyoo bi nag ma koy tàmbalee ci sama wéyjur. Mhm. man koo sama àddina bu bëggee rek ma bëgg. Oh. muy mbaay wax dëgg yàlla mooy sunu lépp. ajaratu jooda mbay moom rek la noo am ñu bu baax di ñaan mu yàgg fi te wér amiin dafay war a yàgg yaay booy mbaa xam nga ne li may def neexu ko oh, looy wax nii fit ak jom rek a tax may fipp ni di def. mais bëggul sax ma def musique. dëgg la. mais boo dee doomu ndaanaan. Mm-hmm. munoo ñàkk bañ a way. man Babacar Dieng sama baay Mbaye Dieng koo ko way Mara jantal Mara. Ah. wayoo way moo ko moom moo ko téye ci loxo. kooku moo dajeeg dem si yàlla si Ndiaga mbay mu ne àdduna kii rek nga mën a doon mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen barke Cheikhul Khadim. Oh, mu yëkkati xéwal gu bari may ko rajo. kenn du ko ndamoo mais sama bàyyi daa xooy ci àddina. macha allah ak Seydina te kenn xamu ko. Mm-hmm. mais nag daanaan nag noonu la daanaan day laaxu. Mm-hmm. kooku bis bi ñëwoon fii tey ngeen dégg lu garaaw waaye nag lu ji njaag moom mooy njaag mooy sama yaay yi. maa ngi koy bëggee di bëgg ci moom bu baax. mais nag ah ñaanale ma mu yàgg fi te wér. bu fi yàggee rek mu neex. <laughs> di nuyu waa Tëngéej yëpp daf fi yàgg wér. may doomu Tëngéej nag di ndamoo Tëngéej. Uh-huh. waaye nag may doomu tamit Sénégal. Uh-huh. bëgg ñëpp nag waaw tey jii suma ma limee damay juum mais maa ngi uh-huh. nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di kontaan ci ñëpp. di nuyu fu ma jógee muy Tëngéej. ndax nu ma mel yàlla ak ñoom la. ba su ma wootee ñëpp bàyyi seen yitte ñëw wuy si ma mënu leen a fay. est ce que yaa ngi bàyyi xel artistes yi jógee Tëngéej bu ñu ñëwee Dakar dañuy cartonné gis nañu Momo Pama Sabel ba ci taala Jasaaka ku génn rek day cartonné. est-ce que yaa ngi bàyyi xel loolu. waaw maa ngi koy bàyyi xel ndax euh, kooku sama frère la. Dieng mhm. Saalo ñoom yàlla mooy def deret mooy dox. Mhm. te deret bu yëngoo rek yëngu na. ñimewoo sant Dieng te doo waay amoo fit bi. kon ku Dieng Dieng di sa maam da war a way. Mhm. ñu bokk benn maam ñun ñëpp ñu bokk benn gox. mais ay ndaanaan nga tudd. yàlla na yàlla fal ñu yeggali seen yoon waaye a ah, seen rakk nga ñëw de te bëgg nañu teg ñu loxo te xam ne ñu ngi ci yoon bi te li ñuy def dañ koo gëm mm-hmm. sama papa bu taxawee ma ne moo daaxa way Youssou Ndour su ne ma daam way la may way amul lu may ragal ci way mm-hmm. way bëri laa ko def mbër bu ma dajale ma la ciy daan amul lu may ragal man jeg dëgg la oh, <laughs> waxtaan bi dafa neex tubaar fakal la bu ñu sañoon moom dañuy continuer comme ni ñu koy waxee rek problème de timing la waaye ki ngeen gis tey rek moom moo di daam wax nañ leen ko di doom ci ajaratu jooda mbay mi ñuy bokkal plateau euh, saa su nekk moom itam muy daan euh, di euh, doomu woykat ku kulli fadrin comme ni ñu ko waxee donc mbégte la ñu recevoir oon ko ci plateau bi xam naa du ñu ne guléet waaye li nga waxoon sànq rek yaa ngi def ay prestation ku la soxla single yeeg yooyu dara nekkatul en ce moment lan mooy projet yi ci tënku loolu nag yaay bu yéen ci jàpp ndax single ñëwagul waaye ku ci mel ni sama yaay ji eh, Ramassar mhm. nekk ba Europe mhm. wax dëgg yàlla mi ngi ciy teg loxo dëgg la ku ci mel ni yónni ci yónni mhm. waaw ñuy sant bu baax di leen gërëm ñoom ñëpp ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax. ak ñeneen ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ciy jàpp. Mm-hmm. ñu ngi bëgg ma génne. Mm-hmm. waaye maa ngi ci yoon mais yegg seegul non da ngay génn nànk ndax yow jaar nga ci télé bi nga xamante ne moom moo gën mooy seetu askan bi et je pense que ñu mag ñi nga xamante ne ñi ngi ci ginnaaw di wut ay xale yu mel ni yow eh, dinañ ci gis seen bopp li ñuy def rek dañuy dem ci fin wu émission bi man di ma bëgg Omar mooy maak yow ñu tàggoo moom ñu jox ko mu tëjee ak li nga xamante ne moom moo di eh, ambiance ndax loolu laa bëgg gars yi gis producteurs yi mun a ñëw. dafa mel ni da nga am événement dafay sargal Amina Poté sama yaay. ah Amina kooku sunu yës la kañ la loolu. le 2 bii ni mu nekk Raven Night Club. le 2 mars. groupe Dieng Saala famille di sargal Amina Poté. sargal jigéen. sargal jigéen ñi lañ ko def. macha allah teg ko muy marraine bi. waaye nag yaay wooy oo nañ la de. dinañ ñëw ci biir ndax boo leen woowee Amina rek ñun ñëpp ngeen woo. ndax ñun ñoo bokk waar wi fii. macha allah donc le 2 la ca Raven ah kon nag eh, gis ngeen ko ñu ngi tuddee lu deux ki nga xamante ne moom moo di Amina ñun ñëpp du ñàkk dinañ def délégation bu mag ñëw wuy si la ndax yow da ngay sunu doom te boo wootee war nañ laa mën a wuy si li ñuy def rek sama doom ji ma bàyyi laa kàddu gi eh, nga wax les derniers moo tàggatoo man it je fais pareil ñu delloo ko li nga xamante ne moom moo di yëf rek mu ambiance. amoon mbégte ak contentement. Mhm. teew fi jàkkaarloo ak les fidèles téléspectateurs di leen jox rendez ba beneen yoon incha allah. Mhm. di nuyu baax suma yaay soxna Xayta Seck. ndeysaan gaynde Alaaji Baara. Mhm. borom établissement Soxna Xayta. Mhm. suma papa aussi numéro 10 père Libas Mbuub Lay. Mhm. l'homme de l'ombre yàlla na ko yàlla sàmm yàlla aar ko kattanal ko benn transit le transitaire. Mhm. maa ngi lay siyaare bu baax a baax. di la nuyu yow encore une fois di ñaanal sama yaay yàlla bàyyi ko fi. ak mboolem yaay. yàlla kattanal ko. amiin maman Dior Mbaye yal na nga wér yàlla na nga dund yàlla teranga bi nga xamante ne nii oh. ñoom am nañ mbëbët boobu yàlla yegali ko incha allah allahuma amin vraiment damay ànd ak yow rek ci ñaan yooyu kon nag yàlla na yàlla nangu ñaan ndax ñaan bi bu nangoo ñun ñëpp dinañ ci gis sunu bopp ndax joodu toi le mérite euh, macha ci noonu ñu demaat ba fi nga xamante ne moom moo di ca London Oumy Ndiaye London di fidèle téléspectatrice de la télévision Futurs Médias ñi ngi koy bigëp may remercier l'équipe de Glam Touré di nuyuwaat sama càmmiñ boobu nga xamante ne moom moo di maam Jëleen Diouf ñi koy bëggee bu baax a baax waaye sama rakk xol ki nga xamante ne moom moo di Jéeri Ngoone Malobe Samba di leen di wax l'équipe de Aba Show bu leen fàtte seen événement ñëw na ñi ngi waajal lu rëy kon nag big up à vous de ah, yéen daal yokkute taw féex rek macha allah moom laa leen di ñaanal li ñuy def rek nag kon daam yow nañuy ànd rek tëj di remercier nag invité yi fi jot a jaar yëpp producteurs yi ba ci Youssou bu ko kenn euh, fàtte na ngeen bàyyi xel ci boobu rawatina nag suñu doom ji nga xamante ne moom na ñuy jox merci à l'équipe technique aussi a acca sëñ daam waaw may may souhaité sama frère sama ndaanaan borom Thiès. Mhm. happy birthday borom 8 mars. happy birthday waaye toxoro tam bu baax. <laughs> toxoro ndeysaan la ñu fas moom kii ndaanaan la hélas mooy jël ku bagaw la jël ñëpp. maa la wax ndaanaan mag la. waa lii xanaa ay rëbal la koy. liggéey bi waaye sama yaay ji Issa Thiam. di tamit sama. ki nga xamante ni mooy sama invitation bi. muy doon ci sama parrain bi. waaw euh, moom wax dëgg yàlla Arona Sarr. Arona Sarr waaw ñuy kontaan ci moom bu baax a baax. président mhm. kontaan nañ lool. macha allah. bu wurus. xam naa ku jël ngalam doo perte. su dee mbaay su may bëreet yow laay àndal. laa dama laa bëgg ma chérie boy su may tukkee ci yow laay àndal bu ñu xëccoo xam naa ko jël ngalam sa jigéen ba Culturec, le magazine des arts et des créations, le magazine de la culture sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, une interview exclusive avec une maquilleuse professionnelle. Il s'agit de Khadignan Diarraté. Là, c'était carrément une fierté pour moi, comme quoi tout arrive à point nommé, de monter ces marches et surtout de les monter avec euh, Mariem Gom, qui est ma petite sœur, qui est mon bras droit et euh, qui est ma fierté personnifiée. Donc, c'était pour moi, euh, quelque la transmission, c'est l'éternité. Dans Culturec également, immersion dans le monde de la mode avec une styliste qu'on ne présente plus. Il s'agit de Bijoussi. Une autre valeur ajoutée vraiment que nous avons euh, dans la marque Tutti, c'est les détails. Mm -hmm. Comme cette robe, si vous observez les lignes, mm -hmm. on a respecté vraiment les symétries pour recréer un autre tissu et tout. On est vraiment dans le détail. Enfin Culturec reçoit aujourd'hui un invité spécial. Il est peintre, sculpteur, il est originaire du Sénégal, mais vit à Genève depuis près d'une vingtaine d'années. Ousmane Dia est notre invité aujourd'hui. Je l'ai intitulé euh, Air Barsakh. Air Barsakh <laughs> Justement pour aborder euh, deux thématiques, euh, notamment Euh, la première liée euh, à l'immigration clandestine et puis deuxième thématique liée à l'esclavage. Il faut dire que donc ce travail, l'origine de ce travail, c'est vraiment le meurtre euh, de George Floyd aux États-Unis. Mm -hmm. Et donc euh, devant cette injustice, euh, je me suis dit que ben, il faut réagir. La base de l'expo, c'est la réhabilitation de la dignité humaine. Mm -hmm. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'une femme pour nous rappeler que nous sommes des humains. une femme pour nous rappeler que nous devons, euh, comment dire, être sensibles par rapport à tout ce qui nous entoure. Moi, je suis très engagé parce que tout simplement, euh, j'aime pas l'injustice. Moi, j'aime pas l'injustice. Et puis, euh, évidemment, aujourd'hui, euh, moi, je crois que je suis fier de, de pouvoir monter cette exposition parce que c'est un écho euh, par rapport à euh, ce qui se passe